tey ñu ngi fi ci forêt classée de Thiès ñu jël lu toll ni euh, cinq hectares war ko reboiser gis ngeen ni zone bi euh, carrière bu yàgg la woon euh, amul benn grab presque bi fi nekk ñu clôturer ko sur les cinq hectares ñu war ci delloo tey ay garab pour que at yi ñuy di ñëw bu soobee yàlla fii daal di nekk benn forêt boo xam ne forêt bu am solo la. jël nañ fi reboiser nañ fi ay xaya reboiser nañ fi ay baobab ak yeneen espèces yoo bu soobee yàlla avec le programme xëyu ndaw ñi bi nga xamné mom moko nara topoto dinañ fi am benn forêt bo xamné bu mucc ay ñaarel bi damay fatali mbolo mi li nga xamné tay ji mu ngi xew ci adina bi muy ndox ak taw bi nga xamné mu ngi wàcc à des quantités impressionnantes loolu yëpp li waral mooy changement climatique bi nga xam réchauffement de la planète bi nga xam ne moom am ba créer ay situation yo xam ne tey jii barkaati rek la gis ay inondation ay taw yu bëri yo xamné ne na ci ndakaaru euh, lu toll ni près de 135 trente mètres euh, millimètres yo xamné ne fi na fii ci ci ndakaaru loolu yëpp lu ko waral moy Euh, population yi nit ñi ñoo sàgganee seen aalam ñenn ñi ñu yàq ñenn ñi ñu bañ a toppatoo ba keroog échauffement réchauffement climatique bii di gën a tar ba créer les conditions yi nga xam ne moom laa wax léegi-léegi euh, loolu nag bu ñu buggee mu dàkk dañu war a jëmbat garab pour séquestrer li nga xam ne moom la ñu tuddee la carbone bu ñu ko séquestrer ba pare dina wàññi échauffement bi parce que objectif bi bu am moy wàññi au moins euh, 1,5 degrés degré Celsius Waye lolu c'est un challenge bo xamné challenge bu metté metté métti la il faut que ku nek dugal ci loxom manam ñu fexé ba dello garab ci suuf si xam ngeen ni njëriñu garab kenn mënu ko natablé. son excellence monsieur le président de la république def ko jël ci priorité yi nga xamné amnako. am ci mandat biñ ko jox cinq ans yi nga xamné mom la nek ni mu jël ci priorité yi mu créer li nga xamné mom euh, l'initiative le PSE vert manam le reboisement inclusif du territoire national au moment où je vous parle dans toutes les régions du Sénégal euh, les gouverneurs sous la coordination des gouverneurs ñu ngi organiser ay journée de l'arbre wayé na ngeen japp ni journée de l'arbre bi rek nekul cérémonie officielle bi rek nekul li nga xamné fofu lañu la yem ci li nga xamné mom lañ parce que dañuy lancer campagne de reboisement 2022 avec le Sénégal am ci presque 10 000 jeunes ils seront dans les axes routiers ils seront dans les axes autoroutiers ils seront dans les grandes villes ils seront Inshallah dans les campagnes pour faire garab delu place bi nga xamné mom la nekkoon demb ak barke demb tey jii nekk na bés bu reuy bés bu mag euh, ci réew mi parce que bés bi ñu jagleel li nga xamné moy alam bi particulièrement l'arbre ren euh, chaque année dañuy jël ben thème bo xamné mom moom la ñuy euh, duppee mooy journée de l'arbre bi thème ren bi moy le PSE vert moteur de développement communautaire durable ñu jël comme arbre parrain muy le Khaya sénégalais 6 bi nga xamné ne ku ko xamul bo démé à Thiès bo démé à Tivaouane bo démé à Khombol bo démé à Dakar dans les grandes artères yi nga xamné ño nek au centre ville amoon na fa ay garab yo xamné Khaya sénégalais 6 ñu tuddé ko xay mo fa nekkoon lool motax ñu war ko restaurer actuellement garab yoyu atteindre nañu sen maturité ñu bari ñu ngi commencer daanu ñu bari ñu ngi commencer dee waye sunu cieur ak suñu wareef moy ñu delloo garab yoyu fi nga xamné fofu foofu lañ nekkoon démb ak barké demb ñu toftal ci nak euh, ki nga xamné mom moy suñu sunu emblème moy euh, le baobab di arbre bo xamné euh, symbole la fi ci réew mi ñu toftal ci lolu motax ci périmètre cinq hectares yi nga xamné mom moom lañ journée de l'arbre fi ci forêt classée de Thiès jeunes yi ñu presque 500 jeunes 500 euh, à 600 jeunes 775 jeunes def nañu déplacement ñi joggé à ñi joggé Thiès ñi joggé Dakarou euh, ñom ñëpp ñu dajé fi euh, pour bok avec des moyens yo xamné gis des ko légui ay euh, machines yo xamné ñom ñoy def trou trou ak euh, tricycle yo xamné euh, la direction générale wala le directeur général mo xalat euh, defal modifier ay tricycle pour mu nekk euh, non seulement ay camion citerne waaye mu nekk camion de transport li nga xam ne moom mooy euh, plan yi mu embarquer loo xam ne moom mooy foreuse yi donc ben nit mun na forer mun na jëmbat arroser ak tricycle am fonction yooyu yëpp ñetti fonction yooyu nous ñu dajale ko ci tricycle je pense que monsieur le directeur général c'est euh, une ko euh, parce que l'invention bu am solo la euh, fi nga Sénégal ñun avons yaakaar quantité de ci commencé à multiplier pour rendre cette jeunesse bi nga son excellence monsieur le président de la république recruter dans le cadre du programme xey pour que cette jeunesse soit autonome dans les actions terrain partout au Sénégal Inshallah, ci loolu lañu taxaw